li xew keroog ñépp ko gisandoo mooy ne forcé Ousmane Sonko dina dem tribunal ci jamono joo xam ne amul benn loi ci dëkk bi du constitution du loi boo xam ne nee na ci genre dossier bi farata la ci man ma teew tribunal bu ma sooboon sax ma ne dew ma tribunal du tee procès ba am juge bi àtte nu mu ko nu mu ko neexee li ñuy wax jugement par défaut kon amul lenn lu mën a justifier ci dossier boo xam ne correctionnel la nga ne forcé rek dinaa wañ loxo nit yóbbu ko tribunal ba tax nga toj otoom ba tax nga gaañ ko waaye li gën a garaaw nga jël produit boo xam ne ñëpp xam nañ ni produit toxique la mooy produit boo xam ne lu mën a gaañ nit la lu mën a def jombe yu bëri la ci wér-gu-yaramu nit jàkkaarlook moom pomp ko ko ci kanam ci bët nokkiloo ko ko te problème boobu mën a am lu bëri lu mu yàq ci wér-gu-yaramu nit kooku jamono ji ñu tollu tembe xamaguñu produit boobu lu mu doon yónnee nañu li nga xam ne moo nekkoon ci suñuy kaw yére bitim réew pour ñu def analyse yi ndax fii lañ ko bëggoon defee waaye nee nañ ñu laboratoire yi nekk fii amuñu jumtukaay yi pour defee ko fii ci senegal ñoo ngi xaar résultat yi am na loo xam ne lu nit yi liggéey ci santé am na lu ñu njort ni lool la ci benn produit boo xam ne euh, agent anti-émeute la yu ñuy utiliser ci yu mel noonu bu dee boobu la am na lu bëri lu mun a def ci santé ci lu war jëm ci mbirum bët ci dem li ci mbirum noqi ak poumon ci dem ci lu li dem ci wàllu xol ak ci li dem ci wàllu biir moo tax keroog ñu ma ko defee ca saasa de métti woon na lool ci bët yi ak ci not bi waaye bi ñu eggee kër gi ci ngoon leneen ak leneen yokk na ci amoon nañu ay douleur ci biir bi amoon nañu yeneen ak yeneen douleur ba tax ñu ne faw rek ñu dem hôpital ñu xool ñu waaye Sénégal yëpp gis nañ ni bi ambulance jógee fii di dem dañoo lànk ni ambulance bi du yegg ci sama kër il a samay avocat seen bopp ñëw dugg ci biir avocat euh, ambulance bi ànd ak ambulance pour ambulance mun a yegg ci sama kër moo tax ma ne tentative d'assassinat la mooy pexe la pour faat suñu bakkan te du pexe bu jiitu te gëmm ni dina doon pexe bu mujj ñi ngi sant yàlla nag ndax bi ñu dugg see fii ci clinique ba léegi wax dëgg yàlla macha allah dañ fee fekk personnel médical bu mat lañ ko doyee samay médecin bopp déplacé wu nañu jóge seeni cabinet spécialité bu nekk ñi nga xam ne ñoo ma ciy suivre ñëw nañu fii def seen liggéey niñ ko war a defee ànd ak ñi ñu fekk fii ci clinique bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant njàqare boobu nag am moo tax sénégalais yu bëri tuddoon mbirum évacuation sanitaire mooy nañ ma génn réew mi pour ma dem xooli sama yaram bitim réew ñi ko wax ñëpp nag doore ko ñi nga xam ne maak ñoom ñoo bokk fare ci parti bi waa bureau politique bi ak militant yi ñi nga xam ne suñuy allié lañu ci wàllu politique ñi nga xam ne ci société civile bi lañu bokk ñi nga xam ne ci mouvement citoyen la ñu bokk ak ñeneen ak ñeneen ñi ko wax ñëpp ñoo ngi leen gërëm leen sant ndax xam naa ni njaqare moo tax ñu wax ko waaye ñeewantu moo tax ñu wax ko humanisme moo tax ñu wax ko ñu leen di gërëm waaye ñu ngi sant yàlla ndax nee naa ñun dañoo mësa wóolu ci bépp fànn ñi nga xam ne ñoo ñoom la ci seen xam-xam màcc te ñu nekk ci biir réew mi moo tax fii la ñu mës a fajoo ci lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ñooñu liggéey bi ñuy def ñu ngi koy def ñu ngay xaar ba dajale lépp ci résultat yi bu dee ñoom jàpp nañ ni laaj na loolu dinañ ko xool waaye tembe fi ñu toll nii loolu du farata ci ñun du farata ci ñun fii lekk rek ñu ngi mën a faju fii ci biir réew mi li ñu mënul def fii mooy analyse yi nga xam ne amuñu jumtukaay yi yónnee nañ ko bitim réew ba xam produit yooyu lan la buñ ko xamee it liñ ci war a def ci wàllu wér-gu-yaram ak ci wàllu yoon dinañ ko def ba mat sëkk moo tax xalaatuñu ni jamono ji jàmp na wala farata pour ñu génn dégg nañ sax ñi féete ci nguur gi naan ay waxu évacuation sanitaire ba naan ay expertise ak contre expertise amaana ñoom évacuation sanitaire lu leen di arrangé la man de ci sama jëmm bopp sàkkuma ko doxuma ko bokk na ci li tax mooy li ma njëkk a wax mooy fii léeg ñii nekk fii Sénégal yor paj mi ci wàllu biir ci wàllu bët ci wàllu euh, xol ci wàllu poumon ak yeneen wàll ñi ngay def li ñuy def te jàpp nañu war nañ ko mën def dañuy sant yàlla dénk leen suñu bopp ñaareel bi mooy ci wàllu politique ñu dañoo jàpp ni combat bi fii la biir senegal te bu ñu fàtte mukk ni saa su jëmm jaaxalee nguur ba xamul nu muy def ak moom day fexe ba génne ko ci réew ma moo tax noonu la ñu génne woon yonent yi ci seeni dëkk noonu lañu génne woon mag ñu baax ñi doon résister yépp ci seeni dëkk fu nguur mu sa jaaxle ba xamul nu muy def ak nit rek day fexe ba mu génn dëkk bi te ñaare boo xasee ba génn dëkk bi mën nañu jafeel dellusi bi ci biir réew mi moo tax nun duñu génn réew mi combat bi fii la ñu bokk kook ñiy xeex ñépp ma jiital ci ndaw ñi ak seen taxawaay bi nga xam ne mënuma koo natt ci njàmbarte boole ci mag ñi nga xam ne mënuñoo génn xeex waaye ñi nga toog fi ñuy toog di encourager ak di ñaan boole ci mboolem seen citoyen yi nga xam ne saa su ma jógee sax di déplacé wu naan maa ngi dem tribunal wala maa ngi dem meeting foo romb yoon boo romb ñëpp ngi taxaw ci balcon yi di la tàccu ak di la encourager xeex bi fii la te la ci des bëreetul duma leen bàyyil réew mi naan maa ngi génn bitim réew loolu rek lañu yàkkamti te bis buñ ko defee dinañu yeggali seen liggéey mooy xool nu ñuy doggalee li fi nekk ci résistance xool nu ñuy def ba cibler ñi ñu war a cibler moo tax fii la ñuy toog ak ñoom di jëflante ak ñoom di jàmmarloog ñoom di xeex ak ñoom ba keroog ñu jëlee fi Macky Sall ak système am bii nga xam ne